weeru yéwén ak ndimbalante egsi na weeru sell egsi na ci gi dinañu gën a boole xol yi nañu ànd muy mbokk ak suñuy mbokk sottante xalaat ci li ñuy jëmale kanam wala sax nekkal fi ñuy soxla mbégte mbégte ñi nga xam ne soriyante terewul seen xol yi di gën a jege saa su ne ci seeni wóolore ndax nag loolu mooy jikko bi ànd ak koor ndimbalante bi am na solo kon nag nañu ànd ci ànd si lépp koor mu sell mii seen méewu dano moo leen di jox ca waxte bi ngeen di yittewoo saay su nekk dano la bu sell far te bëri di leen di gunge ci seen ay ndogu ak seeni sukkaru koor ramadan mubarak ak méewu dano Un ramadan en famille, c'est toujours mieux avec l'eau minérale naturelle Kirène et la pétillante de Kirène. Profitez des minéraux nécessaires pour rester hydraté et en forme. L'eau minérale Kirène vous souhaite un excellent mois de ramadan. Kirène soif de vivre mieux. depuis combien d'années maa ngi liggéey sama ay client dañ ma mës a respecté. papa papa doo ma yóbbu ma j'arrive mon trésor. 15 jours nga ma les contrats du Sénégal. ça fait maintenant 2 mois. le travail c'est le papier à carte de haute qualité au Sénégal. wa mama wa mama video no manage with the woman king like Chérie Viviane dafa fekk sa dëkk tëggul ak Distingo jaratul ngay commandé kayit bitim réew qualité bu mucc ayib te ci bi lañ ko defaree. Mon trésor, merci. Distingo se distingue par sa qualité. weeru yéwén ak ndimbalante egsi na weeru sell egsi na ci gi dinañu gën a boole xol yi nañu ànd muy mbokk ak suñuy mbokk sottante xalaat ci li ñuy jëmale kanam wala sax nekkal fi ñuy soxla mbégte mbégte ñi nga xam ne soriyante terewul seen xol yi di gën a jege saa su ne ci seeni wóolore ndax nag loolu mooy jikko bi ànd ak koor ndimbalante bi am na solo kon nag nañu ànd ci koor ànd ci lépp Orange. Ramadan Moubarak si weeru koor bu sell bii Poulet Teral ñëwati na ak ginaar gi ñëpp taamu waaye itam ak lu bees tàkk ay pak Ramadan yu yomb te riche taamu leen seen Poulet Teral ngir bëggal seeni njaboot ak ay togg yu neex te barkeel lii si blanc de poulet ak brochette bu si nekk ak façon boo ko mën a toggee teral daal moo yombal liggéeyu jeeg si biir waañ ndogu li du neex te teral teewul teral dangay togg si bànneex yekk si bànneex teral moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm teral ñoo ko bokk enema Sanders daal mooy seen moomeel di leen taxawu te di leen yokk Ramadan Moubarak avec enema Sanders savoureux. Ramadan Moubarak avec Enema Sanders. Que des moments savoureux. Ramadan Moubarak avec Enema Sanders. togg bu sell sëf te yeween yàgg na jaaxal jigéen taj ay togg yu neex te ànd ak vitamine mësuta yomb waaye tey diwlin jaara soppi na lépp ak i format yu wuute te méngoog bépp soxla qualité bu tënku ci tëralin yi gën a kawe jaara sargal na togg neexal na ndogu ak loo mënti togg diwlin jaara dina rusloo noonu waaye itam dina béggal képp ku gunge ci koor gi na leen caf ka diwlin jaara gunge ci weer wu sell wi ramadan karim ak diwlin jaara jaaraama jaara bés bu dellu moo nee ak kalpe bi gënte wóor fii ba korite gi ku ci retiré lu matul 100000 francs CFA ñu wàññil la ba 40 cent ci frais yi nga daan fay bu ko ëppee nag 1 pour rek ngay fay ci frais li jëm ci fay facture ak transfert ak code moom kenn waxatu ko daañu la wàññil ba 50 pour cent ci frais yi e foofu nag de Orange Money dina baaxee sunu client yu am kolere yi lu ëpp junni pañe ramadan yu am jom Orange Money mooy kalpe bi gënte wóor yeneen i leeral ci orange point sn slash orange Orange Money kooru jàmm Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal Orange محمد بالتب لغيتك وطلوب بجاه محمد ما تبتغي تكوت بجاه محمد ما تبجى من فاتم يبدو وتلو وتلو بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يتوب بجاه محمد قدمت بين يدي مدخا يا رسول الله قدمت بين يدي مدخا لقني مدخا لك واي خدمت بين يدي مدخا يا رسول الله خدمت بين يدي مدخا وحجاج المدينة خدمت بين يدي مدخا أسلمت وجهي للذي فتح السماء وأتى العلا والأرض رب محمد عن

لآل لآل محمد من انتوى يوما لآل محمد من انتوى يوما لآل آل محمد qabla kulli shay alhamdulillah summa alhamdulillah summa alsalaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lilaalamin saydi alawalina walaxirina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi albasiluna nufuusa walnasaih li ahlaayi kalimatillah wa baad ixwanun fi kulli makan nuxayikum wa nusallimu aleykum taxiyatan tayiba تحية من حلبنا إلى هذه الحضرة ألا وهي السلام من الله ورحمته وبركاته علينا وعليكم mbokki jullit yi gannaaw sant yàlla delluwaat santati yàlla te julli ci sangi-sang yi mu di sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam ñu ngi yëkkateeti kàddu jàmm ju lënk la ko xéwal ak mucc bàyyi ko fa yàlla mu nattuñu mu jaarati suñu làmmiñ ñu ngi koy joyal taxaw taxawaayu Chérif Maamin Aydara waaye àbb làmmiñu tafsir Abdourahman di ko teg ci loxo Seyd Abdullahi Fall mu joxal ñu ko Cheikh Ibrahima njaay ahaja Mariam ngir fii ñu toog àdduna wërngal képp di ñu déglu ci guddi gi nga xam ne moom lañu ñu leen ki nga xam ne moo di sangi sang yi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel bu baax àdduna ci xéewal gi nga xam ne moom lañu yàlla defalati moo di weer wi nga xam ne moo di sangi weer yi démb ñu génn ci sangi bés yi mu di àjjuma tey di ba si samedi ñu taxawati noonee nga xam ne tafsir abdourahman ak shérif mamin dara ñoom li nga xam ne moom lañu di baaxoo di teg suñu loxo moo di suukar yi koor la ko tëlee bésu altine ja ba ci àjjuma ja waaye bu sam samedi jotee ñu woowati àdduna ne leen kaay leen ñu ànd ñun ñëpp bégal suñu xol ci ki nga xam ne moo di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi waaye tey si tey li nga xam ne moo ma yéem tafsir moo di weer wi ñu nekk wax naa la léegi mooy sangi weer yi waaye am na génn guddi gu ci nekk moo di sangi guddi yi mu di géy la guddi laylatul xadr kon mu mel ni dafa am lu bokk daje ci kenn tafsir ma di la laaj pour woo àdduna wërngël képp ñépp xam kookee lépp yépp daje ci moom mooy kan laajaat naa la ko euh, ki tax yàlla binduñu ñun ñépp mooy seyduna muhammad sallallahu yàlla mënoon ñu def ñu juddu ci jamono lu jiitu ñi ko fi jiitu ñépp cent vingt quatre mille la ñoom ñëpp waaye boo ci boolee rasul waaye cent vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf boo ko ci génnee moo mujj ci ñoom te moo leen jiite kooku kan yemu ca mu jël diine bi gën ci diine yi am na yu ko fi jiitoon waaye diine moo mujj mu di diine lislaam mu jox ko ko kooku kan la wëlbatiku xeet bi gën ci xeet yi xeet gi fi newoon am nañu jiitu nañu naam waaye xeetam moo gën ci xeet yi xam nga diine gi gën ci diine mooy laa ikraha fi diin inna diina inda allahi lislaam jox ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran mooy téere bi gën ci téere yi yàlla jox ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min ashatillahi wa tilka al amsalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkarun ila axiri al aya waaye yemu ca yemu ca mu jox ko weer wi gën ci weer yi mu di chahru ramadan al mubarak waaye tamit wëlbatiku ci guddi googee inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr àggaguñu ca mm-hmm. mu ngi ci ay ayu bés te xam naa ne dafa dina fi xewi mm-hmm. loolee yépp nag mu jox ko kenn xeet wi gën ci xeet yi ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taxmuruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar waaye loolee yépp nag daje ci benn jëm wax ngeen ko léegi mu nga ca Medinatu Munawwara tey ci tey àdduna wërngal képp may leen ñu seen nopp taataan na leen ñu seen xol ndax kat tafsir abdourahman ah shérif mamin fas nee ne yooyu nañu bëggal ndax yaa ayyuha alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillahi ndekete yoo ala bi zikrillahi tatmainu alqulub mu ne ñi gëm ñu ngay defal seen xol ci tudd yàlla ndekete ci tudd yàlla la ñuy amee tawfiiku xol kon ñu bëgg rek macha allah rabbul alamin àdduna wërgal képp ci weer wii nga xam ne moom la ñu am muy weeru koor waaye ci bërëb bii nga xamante ne El Hadj Ndiaye defati na ñu bokk ñu ñëpp mbokk yi taaxirlu kii bëggal suñu xol ndax li wér ba wér mooy ñun dañu feebar te feebar gi ñu feebar le médecin ne fait que diagnostiquer le mal après quoi il prescrit le médicament qu'il pense pouvoir soulager ce mal là mhm. mais la guérison est une exclusivité divine docteur bi mënul lu dul càmbar li la feebar bu ko càmbaree ba pare seet nag xoox sàngam wala ndox sàngam wala siro sàngam dees na amaana amaana boo ko naanee am ci ab tan waaye daal dëgg-dëgg ñun feebar bi ñu am kenn mënu ci leen ku dul ñaar ñii nga xamante ne bi ñoo toog jàkkaarloo àdduna wërngal képp kenn ki tudd Chérif Maamin di dogitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ki di Chérif Abdourahman Tafsir Gaye di dogit tamit ci yonante bi sallallahu alayhi wax naa la ko du benn yoon du ñaari yoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana jaddu kullu taqiin man maay maam yi képp ko ragal yàlla te ñun ñii ñëpp ñu boole suñu bopp ci ñi ragal yàlla kon bu ñu fi toogee di njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mbokk yi nga xam ne ñooy suñuy docteur yi xol ndax kat ñoom ñoo ñuy taggal yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñu mën fi am tawfiix di ñaan yàlla koor gi ñu sumb yàlla nañ ko doore ci bismillahi rahmaani rahim sottal ko ci alhamdulilahi rabil alamin waaye daal ku leen déglu ko ne dana dégg te li am solo moo di kiy yër di wax ak kiy yëg di wax duñu benn waaye tafsir yër na waaye fi mu toog nii yëratul da yëg di wax kon ñun ñëpp ñu ànd ñaan yàlla subhaanahu wa taala lal suñu ndabi xol ñu yàbbil ñu ci loo xamante ne bi fii ba keroog ñu teew ci kanamu yàlla lépp yiw lay doon wa kullu amin wa antum bi xayr asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barik lana barik lana allahumma fi ladwiyati washfi biha ya rabbi kulla illati biyadika shifaaun laysa fi yadi gayrika fashfina bi jaahi ahmadi fa lillahi alhamdu nu ko góor gu baax gu tedd gi daan waxee borom bi bijaaw bu rafet ba bàyyi ñépp soppee ñépp muy cheikh alxaaji abdul aziz si dabbaax radiallahu anhu li nga wax ni docteur bi mënul lu dul prescrire la garab bi yaakaar ni doom bi walla injection bi bu la ko joxee moo lay soulager kon docteur bi faj la am waaye wéral suñu borom mooy wéral moo tax seen góor bu baax googu Alaaji Abdul Aziz Si Dabbaax moo tax looy def jiital ci yàlla yàlla rekk a fi ne yàllaay fépp yàlla nekk fépp di lépp te lépp xam lépp peeg lépp te kenn mënu ko xam ba mu jeex yàlla dafa defaru ba jekk sog ñoo defar indil ñu boppam fi mu defaral boppam muy àdduna bii jox ñu fi yu ñuy def defal ñu fi defaral ñu fi mënal ñu lépp xamal ñu lépp sañal ñu lépp ñun yàlla mënaluñ ko dara xamal xamaluñ ko dara sañaluñ ko dara tuuteem mooy defar suñu lépp te ñun suñu dara du defar daraam mm. subhanahu wal waahidul qahaar lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad jëmm yooyu nag nga xamante ni ay taalibe yonent bi lañu sallallahu alayhi wa sallam ñu jàpp ci alaaji Abdul Aziz Si Dabbaax fu ko docteur Moussa Ntim il faut que ñu leen di wax ay mbirum mag ñu baax ñi ñoom Serigne Salih Mbacké ñoom Cheikh Al Hadj ñu bañ rek leen xoolee kéemaan yi déedéet waaye ñu xool seen ngëm yàlla niñ daan doxee ci kaw suuf seen tedd ngay ko ñu jàngat ko bu ko defee buñ ci tënkoo suñu àddina dina doon àjjana en attendant ñuy dem ci àjjana ju mag jële yàlla nañ ko yàlla defal. foo ko docteur Moussa Natim day ne bala nga may piqûre wala nga may jox comprimé day wax wax ji moom El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh maa ngi nuyu njabootam yi fi nekk yëpp daan ne baarik lana allahumma fil adwiyati yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma defal barke ci comprimé bii nga xamante maa ngi koy naan wala injection bii ñu may waaj a pikiir baarik lana allahumma fil adwiyati washfi biha yàlla nag ma ci defal saafara yaa bi kulli illati yow suñu borom li tax docteur bi prescriral ma ko jàngoro bi tax mu prescriral ma ko yàlla nag ma ci defal barke yàlla nanga ma ci defal shifa ba mu ñëw fekki jàngoro ji fu mu nekk faj ko mu wér bi yadika yow yàlla ci yow ci sa nguur shifa un ci la wér ne laysa fii yadi gayrika newul ci loxo benn docteur newul ci loxo benn nit newul ci loxo benn nitu yàlla newul ci loxo benn yonant waaye yow mii ci sa loxo la nekk yow suñu borom kon fashfina maa ngi lay ñaan yow yàlla man Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla nag ma wéral ci garab bii ñu ma jox bi jaahi ahmadi ci barke sayyiduna muhammad kon ngir dëggal la nga introduire defe naa ni damay fëgg bunt bi rek tafsir abdourahman boo yor caabi bi moo ñu ubbi wax ñu li ci biir néeg bi di nuyu mbokk yépp di nuyu senegal yépp rawatina nag tabaarakallahu kii nga xamante ni mooy imam Pape Samba boroom xam-xam bu baax bi lii ñuy def nii moo ñu ko dàq foofu mm. waaye dafa jàpp rek moom ni soxla bu dee benn soxla ñëpp bokk soxla bi bu ñu wóoloontee kenn mën na koo dox moo tax ñun suñuy diggante yàlla ñu defaral tawfiq boobu yàlla na yàlla sàmbal ñu ko waaye di nuyu nag Moussa Gueye mu baax mii di mbokk di mag di xarit boobu ba léegi ànd ak ñun di gunge ak Abdallah Fall moom Baye Jibril Njoogu Fall fa tabaarakallahu di leen sant bu baax a baax Boubacar maa ngi lay nuyu di nuyu sa soxna yaa waaye tamit di leen ziyaara bu baax waaye di nuyu papis borom këru soxna Maguette di la seedeel ni sa soxna soosu ak amsatu taxawaayam ba ci sponsor yépp lépp mu ngi ci loxo amsatu keroog rek maa ngi koy tooñ ma ne ko tey moom yow yaay jël kàddu wax mu ne déedéet Chérif bu dee loolu la du ma ñëw pour wan la rek am na ñoo xam dañuy def waaye dem taxaw fële effacé wu yàlla yàlla fay ko bu la kenn gisul tam yàlla gis na la waaye moo tax lépp lu muy def mu ngi koy def ngir jëm yàlla waaye di nuyu tamit sponsor yëpp tey ñu ngi yendoon ak ñoom waaye tey ñëwaat nañu ci ngoon si ku ci mel ni Kader Koulibaly Kirène ñëw wuutu ko fi wuutu fi Precia di ñaan suñu borom yàlla yàlla sàmm la waaye Pape Ndene mi nga xamante ni moom moo fi wuutu distingo muy MSPT fa tabarakallahu nee naa projet gàmmu dañuy invité kii nga xamante ni mooy Mouhamed Kabongo mu ñëw fii ndax kat moom suñu jarbaata waaye suñu xarita suñu soppe la jëf ci Sénégal jëf joo xamante ni néew na ci ay doomu réew mi ñu ko jëf moo tax jaadu na ñëpp jàpp ko ñëpp jàppale ko waaye tamit tabaarakallahu Moustapha Dia ñëwal fi portrait di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla sàmm la di ñaan yàlla yéen waa daara charcuterie daara yéen ñëpp yàlla na yàlla dolli barke ca daara ja foofu bi jaay rasulillahi lépp di xalaal di nuyu waa banque islamique du Sénégal di nuyu ñëpp nag fa tabaarakallahu rawatina waa Sénélec Orange ñoom ñëpp fàttewuñu kenn yàlla na yàlla barke li ci des waaye xaali Ousmane nañu ñaanal ñi nga xamante ni ñoo fi daan nekk ak ñun <laughs> Alaaji Masamba Mbengue sa waa ji moom ngay jiital ci lépp fàttewuñ wuñ ko di ko ñaanal yàlla bu baax waaye Abdoul Aziz Faye passeport ca Liberté 5 ren la fi jóge waaye Umar juuf nga xamante ne bu ñu daan dem tournée Europe moo ñu daan teeru ak soxnaam yëkkati ay oto jox ñu fu ñu mën a dem ci Europe bi fa tabaarakallaahu di ko àndandoo ak moom moom tamit ren la génn àddina di ko jaalewaat mbokk yépp waaye nag di leen jaalewaat Ahmed Amar moom itamit fa tabaarakallaahu génn àddina da année bi passé mu nekk nit ku baax waaye njabootam ba tey ñu ne ni suñu papa daan àndee ak yéen ba tey ji nii noonu lañuy àndee ak yéen ñoo ñëpp kenn du leen fàtte wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla li ñuy wax fàttaliku boo ko dindee ci dundu doomu aadama rek dara desatu ci ñoo ñëpp di leen fàttaliku di leen ñaanal suñu borom waaye tey ji nii démb ku ñu wax Saliou Diop bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al bu pap Malick Sy bu Serigne Babacar si tabaarakallahu moom itam génn àddina démb lañ ko jullee ci sama jumaa ja Liberté 6 waaye fa tabaarakallahu di ko jaale Mbaye Diop mi mu tuddee sëñ Babacar si di taawam li may wax rek keroog xalifa Cissé dafa ñëw ci jullee gi ma ne ko Pape Malick si bu sëñ Babacar Sy bu fi nekkoon leer na ma ni jëmm ji kenn du ko ci doy moom moo koy taxawu comme yéenay njabootam yéen a ñëw yéen a koy taxawu kon fa tabarakallahu delluwaat di leen ko jaale waaye di ko jaale nag di jaalewaat nag Modou Mamoun Fall muy papay Dan Fall ak sëñ Modou Fall ca Sénégal broderie góor gu baax góor gu tedd góor gu sell génn na àddina ren di ko jaalewaat Modou Fall di ko jaal ay magam di ko jaale ñëpp di ko jaale ñoom président Cheikh Seck di xaritu Modou Fall di ko jaale euh, euh, président Sayer Seck di ko jaale mbokk yépp nag tabaarakallaahu ñoom Thierno Ba ñoom ñëpp yal na yàlla dolli yërmande ci baay boobu seen baay bu baax boobu di baay Alaaji Ndaama Faal ñëpp a ngi koy jaale di ko jaale itamit kii nga xamante ni mooy euh, Pape jaañ Pape Ibrahima Diagne grand sëriñ de Dakar moom itamit ndax mbokkama lépp ba góor bu baax góor bu yaru gis nga yar ak teggin ah war nañ ko delloo si waat ci Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. tafsir yonent bee ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibihi yàllaa ma yar rafetal sama yar yàlla ma yar ma yaru kon nekk kilifa du la tee yaru billahi bu ngeen daan xool ñoom sëriñ Saalix Mbàkke mbaax gi ñu amoon waaye ormaag yar gu teggin bi ñu amoon te ñoo yilifoon ñépp alaaji Abdu boo ko fekkaan mu toog ci boolu añ toogaay bi muy toog yar gi muy àndal ndax ñoom dañoo roy seen sang bi di yont yàlla muhammad moo tax mu ne yàllaa ma yar ma yaru moom yonent bi kon képp kuy doomu adama da war a ànd ak yar alaaji Mansour mbay ma jàgg mu baax bi yàlla na yàlla fekk fanam Mansour mbay ñépp a ko naw ci Sénégal moom de nee na nit dinañ ko booleek nit dinañ la booleek sa alal toroxal nit dinañ la booleek sa juddu toroxal nit dinañ la booleeg sa ndombu tànk toroxal nit dinañ la booleeg sa daraja ak sa loo mun a am parce que am na façon boo xamante ni yaa ngi koy jikkoo dinañ la booleeg loolu toroxal waaye nit kenn du ko booleek yaram ak tegginam di ko toroxal yar googu il faut que ñu delloo siwaat ko rawatina nag la jeunesse am na ay événements yu ñu fi génn ñépp a war a yaru mag ñi war nañoo yaru xale yi war nañoo yaru ñun ñëpp kenn ku nekk am nga sa responsabilité ne ku nekk xam sa responsabilité nga def ko dañu ne xale bu ormaalee mag mag maa yiw mag bu fonkee xale xale baa baax xale bu baaxee mag fonk ko mag bu yiwee xale ormaal ko moo tax ñu ne xale du reew day xamadi ñàkk xam àddina ñàkk teg ay mbirum àddina moo waral ngay am yenn comportement la parce que da ngay xamadi waaye boo demee ba benn age commencé ragal loo ñeme woon commencé ñeme loo ragaloon xam nga tey am na loo xamante ne ñeme woon ko def bi ngay am vingt deux ans tey ji nii bi nga amee quarante ans ñemee too ko def booba sagesse tàmbale naa dugg xale yi mag ñi bëgg nañ leen dénk mbir yi waaye il faut que ngeen defaraat jikko yi gis nga dem leen di nettali benn histoire rek delloowaat la ko yow tafsir Abdourahman dafa amoon benn jamono benn buur boo xamante ne daanaka dafa yilif àddina bi yépp jour bi muy falu mu toog ci ngangunaay bi population bi yépp toog mu am rassemblement populaire mu mel ni kuy def prestation de serment mag ñëpp toog mag ndaw góor jigéen ñëpp daje ci pénc mi ñu woo benn xale buy toll ci ay 23 ans xale bee nee ñoo kenn jóg taxaw war a waxanteeg buur buur a ngi toog ci ngàngunaay bi population bi yépp a ngi toog dama lay wax rek ci yar xale bi jóg taxaw buur bi ne la la la kii na toog ci mbooloo mi am na ay mag na mag jóg waxanteeg man ndax mag mooy mën a waxanteeg mag seen dégg-dégg tolloo kii xale la mbooloo mi ne tësër xam nañu xale bu ñu yebal ñépp ne teg xale bi taxaw rek ak yaram ak tegginam buur reprendre wax ji déggu leen li ma wax xanaa ci mbooloo mi am na fi ay mag na mag joxan jóg waxanteeg man ndax mag moo mën a waxanteeg mag seen dégg-dégg tolloo mbooloo mi ne tësër xale bi ne ko buur tee nga ma baal ma gàggante sama bopp ci ñaari tomb yi law kaana al qawlu kama taqulu la kaana fi majlisika haza man huwa bihi axaqu bihi an mu ko law kaana law kaana al xaq law kaana kama taqul la kaana fi majlisika haza bu dee li nga wax nii la demee fi nga toog doo fi toog ndax ci mbooloo mi am na ñu la mag fuuf am na ñoo mag am na ñi nga maaseel am na ñoo mën a jur am na ñu la mën a jur waaye yàlla dogal na alhamdulilahi rabbil alamin nga nekk koo xamante ni yow yaay buuru jamono jii ba mbooloo mi yépp alhamdulilahi rabbil alamin nangul la ko kon nag bu doon li nga wax nii la demee toogaay bii nga toog doo fi toog première gàggantiku bu may gàggante sama bopp mm-hmm. ci sa kanam mooy boobu ñaareel bi mooy sa nguur gi màgg na lool tedd na lool kawe na lool waaye lu muy màgg-màgg lu muy tedd tedd tedd tedd tedd dabul nguuru yont yàlla Suleymaan moom mi nga xamante ni yàlla dafa dajale woon ci moom pouvoir temporel ak pouvoir spirituel nekkoon na buur waaye nekkoon na yonant yow nag moom nekkuloo yonant waaye yàlla dogaloon na mu yilif le monde entier moom Souleymane yàlla tàggatal ko ngelaw li ngay voyager di def deux ans moom ci deux heures de temps la ko doon def xuduwuha shahrun waraahuha shahrun moom Suleymaan yàlla mayoon na ko bu mbaam ŋaaxee mu xam lu mu wax bu fas nexalee mu xam lu mu wax bu ginaar sabe mu xam lu mu wax moom mi nga xamante ni dafa yilifoon la monde entier daan na wax naan alhamdulillahi alladi allamani mantiqa tayri maa ngi sant sama boroom moom mi ma xamal waxi njanaaw yi mu ne ko waaye lu nguuram di màgg màgg màgg màgg màgg màgg màgg di tedd tedd tedd tedd tedd tedd tedd tedd mu ne ko waaw mu ne ko xeebul woon petitessu picc bi man tey lu may tuuti tuuti mënumaa gën a tuuti petitessu picc moomu picc moomu doon ànd ak Suleymaan muy laa hupp picc moomu laa hupp Suleymaan xeebu ko woon yonant la buur la ak li mu yilifoon yépp yilif nit ñi yilif njanaaw yi yilif njaay àll yi yilif ndeek ment yi yilif jinne yi waaye mu xool picc mi petitesse picc mi moom Suleymaan xeebu ko ba picc bi indil na ko loo xamante ni ah keneen mënu ko woon indil ku dul picc mi picc mi ñëw na benn bis ne Suleymaan axattu maa lam tuhit bihi wa jituka min sabain bi nabain yaqin dafa naaw dellusi ñëw ne ko seet naa ci bët gànnaaru Yemen jàpp Éthiopie Addis Abeba benn dëkk boo xamante ni la fa nekk ca poytéef la fa nekk ca naataange la nekk ci nëtëx nëtëxu suuf lépp fa ne or yaa ngi belli waaye loo fa sax mu loo fa ji mu sax li fa nekk ci meññeef kenn mënu la wax lu mu toll te kat xoolal ñoom ñëpp kat ñu ngay jaamu kan jant bi te yil jigéen moo leen yilif muy kan muy Balqiis la reine Saba muy dox nag diggante Balqiis ak Suleymaan diggante Balqiis ak Suleymaan ba benn bis Balqiis dëpp na nguuram ànd ak ay soldaaram ànd ak ay ngànnaayam ànd ak ñëw ba ci Suleymaan ne ko nguur taxumaa ñëw ci yow bàyyi naa ko gannaaw bu mu doy alal taxumaa ñëw ci yow bàyyi naa ko gannaaw bu mu doy ngànnaay wala armée taxumaa ñëw ci yow bàyyi naa ko gannaaw bu mu doy dama xool li nga nekk muy leer la ma nekkoon lu lu lu lu lu teraanga yi rëy ci ay bët yépp neen la ma gis ni li ma nekk neen la li nga nekk leer la moo tax dëpp naa sama lépp jébbal naa la sama bopp ak sama réew ak sama njaboot aslamtu maa suleymaana lillahi rabbil alamina keroog boobu mu ne ko bu xeeboon petite su picc mi amaana teraanga googu du dugg ci diine gi delluwaat bëgg toog buur ne ko wax nga dëgg nga ne sama nguur gi lu muy màgg-màgg dëgg dëgg dabul bu Souleymane bi lay wax nga dëgg nga ne yow itam looy tuuti tuuti tuuti tuuti munoo gën a tuuti petit tesu picc bi te Souleymane déglu na picc bi ba picc bi indil ko li mu koy indil ah mu jural ko teraanga kon nag jaadu na ma déglu la bismillah maa ngi lay déglu nga looy regle regle ko ci yarak teggin ay réglé dara coow yi bu mu baree ba jeex dañoo toog autour d'une table réglé ko kon ñàkk yar ak xeex ak toj ak rey ak yooyu yépp fajul dara na ñépp jël seen responsabilité mu ne ko mbooloo bee ma yónni woon ci yow nee nañu ñu ngi sant yàlla ci yow waa ji mu ngi doog jël nguur gi de exercé gul da doon prêter serment waaye dëggal li xale bi wax ak moom mbooloo mee ma yónni ci yow nee nañu ñu ngi sant yàlla ci yow ci ni ngi leen yilifee ci yar gu mat sëkk ku rafet noo yaroo nga benn ñaareel bi ñu ngi sant yàlla ci yow ci ni ngi leen yilifee ci maandu gu mat sëkk ku rafet noo maandoo mbooloo mi ne réew mi ne ñu ngi sant yàlla ci yow ci ñi ngi leen yilifee ci njub gu mat sëkk ku rafet noo jubalee nga mbooloo mi ne ñu ngi sant yàlla ci yow ci ni ngi leen yilifee ci muñ gu mat sëkk ku rafet noo muñalee nga mbooloo mi ne ñu ngi sant yàlla ci yow ci ñi ngi leen yilifee ci yërmande gu mat sëkk ku rafet noo ñu yërëmee nga ba moo tax nee nañu képp ku fi daje tey di mag di ndaw di góor di jigéen gis nañu seen àq ak seen yëlleef li ngi leen yoreel muy nguur gi ba tax na ñépp daje-daje bii ne nañ la ñaanal loo gën a yàgg seen kanam yàlla na nga fi gën a yàgg ànd ak wér ba li nga yéene réew meeg njaboot gi yàlla na la ko yàlla defal wasalaam mais bu waat buur ne teg bu mu yàgg siggi ne ko jëf aka neexoon li ngeen wax nii nekkoon ci man kon tey lay bég ba jaayu waaye li ma wér te wóor bu rey wax de newul ci man yéen kañ dangeen ma won tegal ma feuille de wan won ma naka ngeen bëgg ma yilifee leen juróomi point yi géet ba tegal da ngeen ne da bëgg ma yilif leen ci yar gumat mat sëkk kon yaa war a gën a yaru sa njaboot buur day am yar ñett yi ñett ñi waruñu ko am mm-hmm. xam-xam ku iñaan waru koo yor alal ku nay waru koo yor waaye nguur ku soxor waru koo yor buur du nekk benn nopp kilifa gu mu mën a doon moo xam président la moo xam ministre la moo xam directeur de société la moo xam xalif général la moo xam imaam la moo xam chef de quartier la moo xam borom kër la waroo nekk benn nopp boroom xam-xam bu mag ba nekkoon buur ci réew mi ku mësaan ñëw laaj ko audience da lay ne baal ma bala ma lay jox kàddu dama lay ñaan ñett yi fexeel ba bu ma jay fexeel ba bu fi jëw fexeel ba bu fi fen bismillah kàddu gaa ngoog bu kilifa yi def yépp defoon nii kenn dootul yàq kenn mu ne da ngeen bëgg ma yar leen ma yilif leen ci yar gu mat sëkk ci njub gu mat sëkk ci maandu gu mat sëkk ci yërmande gu mat sëkk ak lan di muñal njaboot gi muñal xeet bi ndax meilleure façon de prier c'est de supporter les autres gis nga booy njaboote da ngay njaboote ku am njaboote ku ñàkk njaboote ku mën njaboote ku tële njaboote ku jub njaboote ku dëgg njaboot googu yépp di njabootu yàlla il faut que nag nga xam ni yàlla la jël dex la ci kanamu njaboot gi moo tax nitu yàlla ba buur ba tafsir da daan jóg guddi naafila ba trois heures du matin ne bàcc yàlla loxo ne yàlla mbooloo mii di réew mii ma yilif lépp luñ ma mën a def lépp luñ ma def dinaa leen ko muñal ngir liñ ma defal hmm. liñ ma defal tax na lépp luñ ma mën a def dinaa leen ko muñal kon nag ñu delluwaat xam ni tamit kilifa kilifa la ñu jox leen cër nañu delluwaat cër yi Sénégal moom dañuy nekk réew moo xamante ni ñëpp a bëgg a doon kilo te liibar mënta ñàkk genn wàll liibar mënta ñàkk yonent bi moo ne borom cër yi defuñu dara ñu ne yaa rasulallahi kan moo def dara mu ne mooy ki séddale cër yi anzilu naas manazilahum kilifa yi jox leen seen cër kilifa diine yi nañ leen jox seen cër kilifa aada yi nañ leen jox seen cër kilifa addina yi nañ leen jox seen cër sa autorité waroo ko défier sa policier waroo ko défier nit am na koo xam boo ko défier sa bopp nga manqué nañu joxante cër xam ni réew mii lañu am Sénégal bii lañu fonk nga xam ni mag ñu baax ñi dañu musoon fonk autorité yàlla ne woon Moussa maa la yónni ci Firawna yaa ngi ci dëgg mu ngi ci fen maa la ngemb Iblis a ko ngemb waaye boo yeggee ba ci moom wa la lahu qawlan layyinan laallahu yatazakkaru aw yaxsha na nga wax ak moom wax ju ànd ak yar wax ju ànd ak teggin parce que man yàlla maa ko abal nguur appareil d'état la yor bu ko dóoree sa kaw te yërëmu la nga guddee gis nga cër Moussa bi mu demee wax ak moom wax ju ànd ak yar wax ju ànd ak teggin kon autorité da nga koy fonk kon yàlla danga koy ragal sa yonant da koy dëggal sa autorité da koy déggal sa dëkkandoo danga koy rus koo rus mu rus la sa njaboot danga koy bëgg dégg nga wax ji sa sëriñ danga koy sopp sa ay wayjur da leen di wekk ku yàlla bind nga ormaal ko lii juróom-ñett yi ku ko xam boo ci tënkoo sa àddina dina doon ajjana en attendant ngay dem ci ajjana ju mag jëlee tafsir abdourahman namoon nañ la lool namm nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag maa ngi lay ñaanal yàlla liggéey bii nga fas yéene sumb yàlla na yàlla may nga yeggali koog sa sago bi jaay seydil wujudi Sénégal ñëpp yonent bi la ñu bëgg rasulillahi moo ne ci xol yi alhamdulillahi rabbil alamin li mu lay wax rek ngay ambassadeur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ambassadeur alquranul karim te alquran lépp yàlla nga ko dëxañ ci fatihatul kitab waaye ci biir fatihatul kitab mu dëxañ ko ci bismillahi arrahmani arrahim waaye ci bismillahi arrahmani arrahim mu dëxañ ko ci baa moo tax rabbi bi fatihatil kitabi wa ayiha wa bi sirriha wa bi sirri baa'i lbasmalati wa bi sirri ya rabbi salaati lfatixi wa bi ayati lfatxi alazimi wa xasbala wa bi ayati lkursiyi ajjil bilshifa bilmustafa wa bi sirri haai lhaylala bismillah baarakallahu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin الذي خلق فصوى وقدر فهدى الحمد لله رب العالمين الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون الحمد لله الذي تفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون الحمد لله الذي حكم على عباده بشرب كأس المنون الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له الحمد وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو المدبر الخبير العليم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي قال وهو أصدق القائلين innama bu'istu li utammima makarima al axlaaqi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi alladina saadu alxalifata ajman wa araba wa radiya allahu an taaji alaarifin wa mumiddi kulli awliya arrahmani raisi ahli alhuda cheikh almashayikhi manbai alirfani taaji alaarifina سيدي وشيخي ووصيلتي أحمد بن محمد التيجاني السالمي سقانا الله من فيض بحر نوره الرضوان بأعظم الكؤوس والأواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شريف ñu ngi lay nuyu ay dara jërëjëf xaalis fa tabarakallahu di la ndokkeel ci weer wu tedd wi di weer woo xam ne sa maama tax ñu am ko defuñu effort bu waral yàlla jox ñu ko waral yàlla jox ñu ko du kenn ku dul samaam rasulillahi kon bu ñu jaaree ci yow nuyu la ziyaar la da ngay yóbbaale géew mbooleem kilifa diine yi waaye da ngay yóbbaale géew mbooleem jullit yi seetaan seen télévision bu mag bii di 2STV di seetaan gàmmu gi nga xam ni at mu jot di fukki at ci ren samedi bu jot 2S may leen plateau bi te yàlla tax ak wéttali ay ay téléspectateur am mbokk yi lu yàgg dëgg la. Serif mhm. nag nee na papaam nee lu yàgg dëgg la déedéet. nee na moom d'accordul nee na moom it nee na papaam papa yow nooy doone naar ñëw ci biir olof yi ñoom ñu wax seen wax nga ne d'accordoo mhm. mu ni ko Serif Serif mu ni la béykat mu ni ko. lu yàgg du dëgg bu fekkoon lu yàgg dëgg la jaamu xërëm day doon dëgg ndax jaamu xërëm moo fi jiitu samaam te du dëgg lu yàgg te rafet loolooy dëgg lii nag defe naa yàgg na te rafet na. wallaahi ci lu wér. xam nga lu ko rafetal. Mm. du shérif miy wax de déedéet li ko rafetal du tafsir miy wax de déedéet léeg-léeg sax ñoom ñiy wax ñoo koy ñaawal ndax léeg-léeg ñu rëccile wax kàddu goo xam ne du neex ci nopp léeg-léeg soppe bi di la seetaan baabu lay déglu nga wax kàddu boo xam ne day tiit mu ngay ragal ñu dagg ko wala dara njuum teg doomu aadama moo mel noonu xam nga lu rafetal wax ji mooy ki ñuy wax <laughs> sayyiduna muhammad moo tax benn waykat ko ni man bi ma bëggee samay wax rafet rek laa la féetewoo di la wax nga xam ne lu may wax rek rasulillahi lay wax sallallahu alayhi wa sallam xoolal fukki at ci ren waxuñu dara lu bees li ñuy wax moom la ñu jëkk a jëkk doon wax ba Baay Laaj Ibrahima Sakho mi nga xam ni ci génération bi ñu jee xam la bokk yal na ko yàlla yërëm moo ko doon wax da ca àgg foo xam ni mënuñu faa àgg ndax xam-xamam ak fasaaxaam mm-hmm. yàlla dogal muy ñëw di ñëw di ñëw loola wax bi benn la de wax bi benn la de doo ma laaj wax bi ban la. ban la xam nga wax bi ban la. Ah. mënu la génn rasulillah yee baax. xamoo ne loo ñàkk a jàng ñàkk a jàng bu waykat taxawee nee di way kenn taxaw nee di way kii taxaw nii di way kii naan Serigne Touba nee kii naan Alaaji Malick nee kii naan Cheikh Saad bu nee kii naan Seydina Limaamu nee te ñoom li ñuy wax du benn kii naan woowa akmalul wara buy way ki naan billahi lam yaati ki naan tallahi maa xiftu kii naan wallahi maa fi l wa sama yow xamoo li ñuy wax dara waaye bu kii wayee nga ni yonent bee baax wëlbati ko sa droite kee way nga ne yonent bee baax xool ki ci sa kanam mu way nga ne yonent bee baax xool ki ci sa ginnaaw mu way nga ne yonent bee baax kenn mënul a génn ci loolu dëgg la أن الله تعالى خلق محمدا فجعل رأسه من البركة وعينه من الحياء وأذنه من العبرة ولسانه من الذكر ba mu àgg loolu yëpp lu ñu wax rek nga ni moo baax léeg-léeg sa yaram tàng sax nga ni gars yi def leen nii seen loxo ñu ni nii nga ni moo baax. <laughs> gars yi daal waa kii du firi nga ni moo baax. mënu koo génn de. baatu baax lépp la dajale. Mhm. bu ñu nee yonent bi daa tabe boo nee daa baax ku baax du tabe. kañ. boo nee yonent bi daa teey ku baax teeyul boo nee yonent bi dafa dëggu ku baax dëgguwul kon baatu baax lépp day dugg moo tax mani du ñun ñiy wax déedéet du Cherif Mamin du Tafsir Abdourahman du taggikat du du waykat yi déedéet xam nga kan la ki ñuy wax la loo wax ci moom rek mu neex ñëpp te du sàppi kooku nag la yàlla wàcce ci moom alquran 114 saar la 6666 aaya boo tijjee kaamil bi yaa ngi déparé suratul fatiha yaa ngi ciy teg mooy alfatiha mooy caabi yaa ngi ciy teg suratul baqara baqara booy firi nag kaamil baa ngi tëje suuratu naasi mooy la nit waaye ci biir saar yooyu 6666 aaya yàlla jël na benn aaya wax ak ñëpp yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون yàlla ne yéen nit ñi laay wax ñi may ay nit lañ wala du ñu ay nit ñiy seetaan nag ay nit lañ wala du ñu ay nit kon déglu leen ma yàlla laay wax de yàlla ne yéen nit ñi ñu ne ah muy ubudu rabbakum waay waay jaamu leen seen borom. mel ni dañ ko ni yaa rabbi ban boroom parce que nag boroom yaa ngi bëgg a bari de surtout réew mii ñu nekk di senegal kenn ku ne dóor nga sa ndënd kii nee na maa fi ne kii nee na sama sëriñ a ne kii nee na diwa fi ne yàlla ni boroom bi may wax alladi xalaqakum mooy boroom bi leen bind walladina min qablikum moo bindit ña leen jiitu ndax am na ku fi bind loolu doomu aadama fi muy jaar ku fa mën a jaar ak moom ku dul yàlla am na yàlla nee na kon nag man mi bind man mi leen bind bind maam ya leen jiitu bind maamaati maamaati maamaat ya leen jiitu yàlla ne jaamu leen ma man yàlla laallakum tattaquuna mbes lee ngeen ragal ma ragal yàlla bi ñu ko laajee Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas ne ragal yàlla daal mooy imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi mooy li yàlla bëgg da nga cay ne la yàlla bañ nga bàyyi ko fi Sénégal koo wax mu ni jullit la mm-hmm. nee naa démb maa ngi am ku may waxal mu laaj ma noo gisee diiney Sénégal ma ni ko julli gi moom doy na jumaa yi rafet na jàkka yi kaar ma ni ko ñuy joxe ngi joxe ma ni ko benn problème rek la ñu am mooy li waral ñuy julli li waral ñuy saraxe li waral ñuy dem jàkka mooy defar jikko yi jikko yi mooy suñu problème Sénégal suñu problème dëggantaan mooy sénégalais dafa bëgg dëgg bëgg koy wax dëgg mais problème am yépp mooy bëggul ku ko wax dëgg moom nañ koy wax keneen rek ah tafsir waxal waay. loolu la suñu problème te loolu problème bu jikko la man tafsir bu ma yoree sama oto di dawal ci tali bi jekki ba mu yàgg xaali gay arrêté ma ci digg tali bi laay taxaw gars yi klaxonné klaxonné ma ni may leen ma waay waaye suba bu xaali gay ka taxawee ci digg tali bi maa koy klaxonné aan xoolal ma lii rek nan la réew mi di avancé te démb kat maa ko defoon. dëgg kon xam nañu dëgg bëgg nañu koy wax dëgg. waaye dañoo bëgg dëgg gi di ñu jéll ñu koy wax keneen yàlla ne waay waay jaamu leen ma man yàlla maa leen bind maa bind ña leen jiitu mbes lee bu ngeen ma jaamoo ci biir jaamu yi dina leen pikiir pikiiru ragal yàlla kon ndekete julli gi pour mu baax inna salaata tanha anil fahshaayi wal munkari saa boo jullee ba génn te bàyyi woo sa bopp jullee goo looy julli mën a julli waxtu du la raw waaye fukki atit ku la romb nga jëw ko seetaatal sa bopp julleegoo julli gi baaxagul yaa ngi chargé mais sa chargeur baaxul chargé wul branché nga ko mais chargé wul xam nga lu tax li salaati nuurun azimun tashruqu bihi qulubul musallina wala yanaaluhu illa alxaashiuuna borom lax dari nii julli daa am leer gu mag goo xamee tani boo ko branché di julli leer googu dafay leeral sa xol waaye loolu nag pour nga am ko fokk nga am xol bu ragal yàlla gaa yi alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alxaqi moo ndax jotul ndax jotul ndax jotul xool yi ragal yàlla ñu xam ne fii yàlla rek a fi ne yàlla ne alladi jaala lakum al arda firasha yàlla ne man yàlla mi mi ngeen di jaamu maa yàlla bi nga xam ne maa tàllal suuf si mu doon benn moket mës ngeen a jaar fenn bañ ni suuf daa lemu déedéet laltaay yii ñu lal fii ci biir ci ci suñu palaatoo bi léegi bu ñu ko fi bàyyee léegi rek mu tàmbali lemu léeg-léeg sax nga dem ci ab jàkka fa xastalu yi dem ba tàllal moket ba ba nga xam ne moket ba dootul mën a tàlli waa yàlla ne xool leen ki fi jëkk a jëkk a jëkk laataa dara am man yàlla maa tàllaloon suuf booba ba tey suuf lemuwul te li gën garaaw mooy suuf si yàlla nga ko teg ci ndox ndakaaru boo ñëwee immeuble yaa ngi bari lool te xoolal taabal ji damay wax ni taabal ji taabal ji ñu teg nii bu ma taxawoon fii ci cat bi damay daanu mais xoolal yàlla ni mu tege sées ni mu tege suufam si fii mën naa gën a diis fii mais fii du ñëw ku mën loolu am na ku dul yàlla alladi jaala lakum al arda firasha yàlla ne wa samaa binaa man yàlla man yàlla mi ngeen di jaamu bàyyi leen xel di lii man dong ko def asamaani juróom-ñaar maa ko dale <laughs> dama xamul nag da ko urdi wala dal plein la garda <laughs> <laughs> binaa suñu borom ne maa ba ma ko dalee ak léegi déggagu leen ñu ne asamaan daa fisiire wala am na sérif doom busul am mas ngeen a dégg ñuy raax ba daa xooleeku déedéet mas ngaa gis bu xooleeku te asamaan pourtant yàlla nee na maa ko dale man yàlla yemuma ci de ma ci de wa anzala min as-samaa'i maa'an man yàlla maa wàcce ci kaw am ndox maa yabal ñaari ngelaw ngelaw loo xam ne góor la ak ngelaw lu jigéen ñoom ñaar ñu dalante ba génn ci ndox moo tax léeg-léeg nga dégg ndox ci kaw asamaan déet ci kaw la rek <laughs> ndax ndox mi génnewul ci asamaan si ci jaww ji rek lay génn yàlla ne fa axraja bihi min asamaraati rizqan lakum yàlla ne li leen di wax ni maa mën maa aay man yàlla ku waxoon ni maa ay kudul yàlla billaahi nit ñi ree la yàlla ni li leen di wax ni maa mën affaire maa aay man yàlla benn ndox bi ci laay génne mboolem meññant yi te lépp nag rizqan lakum pour yéen rek la lu pour keneen boo jiwee gerte gi sax bu gerte gi saxee ba ñor nga génne gerte ga lekk ngooñ ma fu mu jëm ca xar yaa waaw boo joxee ngooñ mi xar yi bu xar yi duufee fu xar mi jëm ci yow kon rizqan lakum lépp yaa ko moom boo jëlee ngooñ mi sax jox mbaam mi bu mbaam mi lekkee ba suur ba duuf boo amee say bagage foo koy teg nee ma ci mbaam mi kon rizqan lakum lépp yéen a ko moom eh eh boo jëlee bant ya sax nga nga teg gillit yi di taal boo taalee mu ñor nga jël nga jël sa toog togg teg ca kon lépp rizqan lakum yéen ko moom yàlla ne li ma def yëpp rizqan lakum pour yéen la yéen nit ñi kon waay waay jaamu ma démb dama koy waxtaan ci daara ji benn xale ci taalibe yi jóg taxaw ne oustaz dama am laaj déet man maa ko doon maa leen ko wax ma ni leen may waxtaan ak xale yi ma ni leen dafa am yàlla ne waquudu annaasu a fattaqu nnaar allati waquudu annaasu walxijaara uiddat lilkafirin ci biir tafsir bi ma ni xale yi er, moytu leen sabara yàlla ne sabara daal matt yi ñu koy xambe ay nit lay doon ak i xeer benn xale ni ma ndax xale dina dem safara xale yu intéressant laa yor fee lu ne lañ lay laaj benn xale jóg ni ma kan moo yorant yàlla siisa ci taalibe am benn xale bu jóg bi ma leen di wax boo mokkalee alxuraan li ngay ràmmu benn xale jóg daal ni ma oustaz man dama doon laaj ma ni ko bismillah mu ni ma est-ce que sa bu doonee chrétien di nga ko mën a yóbbu aljana xam nga kooku problème yëpp maamam la waaye na ñëpp dem aljana waay nañ fa chrétien yi xaj fa ñëpp xaj fa fala taj'alu lillahi andada rizqa lak ma ne xale yi nag ma ne leen dafa am jigéen day taal matt yu mag yi ñu taw a tàkk mu yónni doomam ni ko demal wutal ma ay bant yu ndaw mu wut bant yu ndaw xale bi indi bant yi yaay ji yaay ji damm bant yi teg ko ci kaw bant yu mag yi boyal taal bant yu ndaw yi tàkk muy upp bant yu ndaw yi di tàkk ba jàppal yu mag yi xale bi dem beru na la di jooy yaay ji woo ko looy jooy mu ni ko jaaxle lu xew mu ni ko yaay man suñu ustaas daf ma jàngal ni safara ah xale du fa dem waaye daf ma wax ni safara matt ba nit lay doon ak ay xeer yaay man nag ma seetlu ni léegi yow bi ngay taal matt yu mag yi bañ a tàkk dag maa yónni ma wutal la ay bant yu ndaw nga dammate ko matt yu ndaw yooyu ñoo tàkk ba jàppal yu mag yi yaay damaa tiit di damay ragal ëllëg yow mal xiyaam ma doon ci xale yi jafal mag ni ba yàlla du ma dammat ëllëg yow mal xiyaam taale ma mag ñi xoola boobu gis-gis bu sori teel na fees lan laa bëgg a wax mooy jeunesse nañu bàyyi xel ni lii bu la rëccee mën a too ci dara hëy hëta yarta ibu zujaaju idan faa wa yaudu cheikhun fii shababil furadi kaas bu tojee ñàkk nga waaye dem ba sa jeunesse jeex mag dugg pare nga dootoo dellu ci ndaw kon bi ngay daw ngay profité yàlla de fala taj'alu lillahi andaadan waay waay ñii ngeen topp ñu leen di nax rek bu tayee ñu ni gauche bu lëggee ñu ni droite ak ñii ngeen topp ñu yor seen téere yi bopp borom xam-xam boo xam ne li mu jàng moom doo nga ko jàng téere ba mu nekk moom doo nga ko am billahi boo ko toppee dem saako ya amul werante waxuma dëgg. Mm-hmm. bu ne leen ma wax nga dëgg boo. wax nga dëgg xaalis man laay wax nga dëgg. borom xam-xam boo xam ne li nga jàng yow dong ko jàng ci àdduna bi. Mm. téere ya mu ne yow dong yaa am téere ya. billaay ku la topp wóorul. wóorul. fala tajalu lillahi andaadan. Eh! gaa yi wa yasalul ulama booy laaj laajal borom xam-xam waaye bul topp borom xam-xam yépp de ndax am na borom xam-xam yoo xam ni jàng nañu ba ni ar waaye boo leen toppandoowee boo may tul dem safara kon wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati muhammadin bu toppandoo desee toppal ñi teg seen tànk fi ko yonent bi tegoon yàlla ne yàlla ne eh alxuraan ji may wax wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق bu fekkee da ngeen di hésité lii tafsir gay di wax lii sayyiduna Muhammad di wax ci yàlla la jóge wala ci yàlla ay tappale la wala du ay tappale yàlla ne mais yéen yéen a dàq jàng tafsir Abdourahmane Gaye yéen waa Màkka yéen yonent bi salaay salaam fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee masul jàng mënu la liir yéen yéen yéen ba ngeen juddoo ba tey yéen a ngi jàng léegi kay moom 114 saar la wàcce yéen benn saar rek créé leen benn saar bu toll ni saar bi gën a gàtt ci saari alxuraan yi innaa ataynaaka al kawsara ca gën a gàtt nee nañu yàlla ni leen dajale leen seen yàlla yi wad'u shuhadaakum woo leen seen yàlla yi min duunillaahi bàyyi yàlla in kuntum saadiqin bu dee wax ngeen dëgg yéen ñëpp dajaloo leen ngeen créé benn saar du am ba mukk du am ba mukk créé nañu Silabeer créé nañu Sidi Erama du yooyu <laughs> waaw waaye alxuraan créé nañu Taysiir créé nañu Jasbu créé nañu créé nañu créé nañu waaye alquran hmm. ma ni benn saar xoola sëriñ Bamba li mu bind yëpp hmm. xoola sëriñ Aj Maalik li mu bind yëpp xoola Cheikh Saad Bu li mu bind yëpp xoolal mag ñi rek topp ko topp ko topp ko ba ba koo xel la nee xalaatal waaye du yàgga yàgga yàgga yàgg ba duna bi yëpp daje ba créé benn saar ñu ni saar bii daal adduna intellectuel yi adduna yi ñoo dajaloo créé ko mënul nekk yàlla ne fay la tafalu eh, du ngeen mënu leen ko mën naa am ngeen ko ah ah te du yàgg yàgg ba ngeen mën ko fattaqu naara kon mooy ku leen safara yàlla nañ ci yàlla musal amiin Chérif bise gi ñëw nag yàlla de subhaanahu wa taala bu ngeen ma jaamuwul man yàlla ba bis ñëw su boobaa di ngeen xam ni lépp dëgg la wa bashir bégalal nag eh yëgalal moolu ma yëgal alladina amanu yéen ñii toog <laughs> nee na ma wax leen wa amilu saalihaat yéen yéen a gëm yàlla yàlla ne naa leen wax wa amilu saalihaat yéen a ci boole di def lu baax eh lu ma leen di bégal yàlla nee na ma yëgal leen ni anna lahum jannatin tajri seen nelaw yi ngeen bàyyi ak ni koor méttee ngeen yendu ci koor gi tàngaay wi bàyyi seen climatiseur ya jigéen ñi bàyyi borom kër ya góor ña bàyyi soxna ya ngeen bàyyi néeg yi ñëw toog ngir lan dañu leen invité lu wara ñu invité leen mooy guddik yonent bi la ñuy def ci biir 2S ngeen taal seeni oto ñii jël seeni taxi départ ay kilomètres kilomètres ñëw toog ngir lan déglu rasulillahi yàlla ne anna lahum jannatin tajri e eh, ajjanaa leen di xaar waay yàlla na yéex est-ce que est-ce que <laughs> oh, dal na xel de waaw dal na xel de man naam ñun dañuy xaar ñun mani mani damay jàngale man naam ñun dañuy xaar retour retouru sponsor wala retouru salaire waaye yéen ñiy toog jóge fu sori ñëw rek nga xam ni yéen yéen a dépensé xaaru leen dara dara dara dara lu dul yàlla yàlla nee naa leen bégal ma ne ko mooy yàlla lu ma leen di bégale mu ne nee leen àjjanaa ngi leen di xaar te àjjana neex na de gaay yi yàlla nañ fa yàlla yóbbu ajjana neex na de <laughs> billahi ajjana neex na xam nga ajjana li ci mooy da ngay toog ñu jox la pom nga ni mais lii jaar na fi sànq ñu ni la ñamal kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qaalu hada alladi ruziqna min qablu wa utuu bi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahara wa hum fiha xaalidun yàlla ne saa bu ñu la joxee benn fur wi wala ñu jox la benn ñam ci aljana da nga koy xool ni lii léegi lañ ko fi indi daf maa sàppi malaaka mi ne la ñamal rek waaye boo ñamee ni pour pourtant cafka yi du benn de moo tax yàlla nee na ñami àjjana dañuy nuroo couleur ak formu waaye cafka yi du doon benn yàlla nag nee ma bégal leen ni moo leen di xaar yàlla ne yéen góor ñi ma dolli ma dolli yàlla ne eh yow may seetaan yow góor gi may seetaan yàlla dogal nga am benn soxna bàyyi ko ca kër ga ñëw yàlla nee na àjjana nga lay xaar àjjana moom boo demee moom soxna yi xoola yaay bañ lenn nag laay ragal mooy comme nee naa soxna yi yaay bañ na ngay bari soxna borom benn jabar yu fiir yi war a dem ci gàmmu gi seen jabar ne du leen dem du leen dem ndax bañ ñu am jabar yu bari wallaahi yàlla ni walahum fi azwaajum mutahhara jabar yoo xam ni dañu leen di laabal du ñu wax waxi guddi déedéet jabar yoo xam dañuy set setu biir dañuy set setu biti yàlla ni jabar yoo xamee ni du ba di la laaj njëgu ordonnance doo joxe dépense aljana bokk na ci li ba gën a neex doo fay courant <laughs> ah, ah, sénéleku aljana doo fay courant bokk na ci li gën a neex mooy doo fay ndox biir aljana aljana daal toog di noos rek la fu la neex dem fu la neex tëdd fu la neex jóg yàlla ne boole na ci am nay piscine àjjanaa ngi bëgg a neex de am lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar yàlla ne boo le ne àjjana nay piscine moo tax ku yebu jàng feey wala ku mënul feey sax boo demee formation ak salaire lañ lay dóor yàlla nee ma wax leen ni looloo leen di xaar mais nag àjjana yooyu àjjana yooyu yàlla ni adna lahum jannatin àjjana yooyu nga xam ni suñu borom nee na ay àjjana yi àjjana la àjjana joo ca dugg rek ju mu doon june porte ba xam nga luñ ca bind dara de lii ya xam nga luñ ca bind ma wax la kudd yaag fourchette ya luñ ca bind même jigéen yi àjjana yu rafet yooyu li ñuul ci seen bët dañ ko cee bind góoru aljana bu la romb góoru aljana bu la romb jëbi dañ ko cee tamponné xam ngeen kooku kan la laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilhaqi la tadxulunna almasjida alharam insha allah wa aminina محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نقش بن محمد رسول الله نعلم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء allahu baynahum taraahum rukkaan sujjada yal nañ fa yàlla yóbbu muhammadun misaalu lam yaati maa ngi bëgg a dugg ci waxtaan wi waaye tey dañuy sant yàlla fukki at la ñu def di def suñu dixième anniversaire waxtaan wi yëpp dama koy delloo ci sant yàlla Serigne Bamba fëgg na buntu bi dugg di la wax kan mooy muhammad muhammadun misaalu lam yaati xoolal toogaay bi yàgg na seetaan bi yàgg na mais dama bëgg tiyaaba ji gën a bari kenn ku ne ki nga yendal bul ko jox loxo de ndax comme dañu koy tere da nga koy xool rek sourire ko ndax xanaa xamoo ni boo sourire ki nga dendal ñu bind la tiyaabay ko saraxe muhammadun misaaluhu lam yaati ma kaana muhammadun aba adin min rijalikum walakin rasul allahi wa xaatima annabiina wa kaana allahu bi kulli shay'in alima muhammadun misaaluhu lam yaati imam bab samba ma sourire la yow bokk kon sourire naa la imam bab samba muhammadun misaaluhu lam yaati ab jullit dara du hasard xanaa xamoo ne jullit bu reetaanee mbokkum jullitam reetaanu mbégte ñu bind la tiyaabay ku saraxee. muhammadun misaalu lam yaati. sëñ Bamba ne sayyiduna Muhammad ñu ne ah mu ne ku mel ni moom masula ñëw de. imaama daawa abadan laa yaati. sëñ Bamba ne na leer na leer ñu ne ko Ahmad Bamba lan la mu ne ku mel ni moom dootul ñëw de. sabata anna rabbana lam yuridi. sëñ Bamba ne na leer na leer ñu ne ko lan yàlla mu ne ku mel ni moom dootul rot dee. mislahu fa misluhu la yuridi. sëñ Bamba ne na leer na leer na leer ñu ne ko lan la mu ne ku mel ni moom it dootu fi rot dee. law siyaadatun. Eh, eh, loolu ëllëg la ak siyaadatu sangu sang yi boo ëllëgee sëñ Bamba ne kenn la ñu ne ko kan la mu ne baayu Fatima sayyidina Muhammad rasulillah. sëñ Bamba nee na law siyaadatu. wa iz qaala Muusaa li qawmihi inna Allaha yaamurukum an tasbahu baqara qaalu atattaxidunaa huzua شيئا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر هوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صب يا رسول الله من ما بق رسول الله صلى الله عليه وسلم moo yore la sa passé boo liggéey yow ma alastu bu yàlla naan ndax du ma seen borom wala da shafaa sëñ Bamba ne su boobaa mooy rab mu jaam yi wan nabi kenn rek la la yàlla solo Moussa mi ma doon nettali léegi bu ko yàlla yónnee rasulillah yi. a nabi. hey hey hey hey Ibrahima du sa maam la moo jur Ismaïla sa maam bu ko yàlla yónnee rasulillah yi. wan nabi. moom la yàlla solo. wa rasul. cent trois cent treize yàlla yónni muy seen capitaine. wal dama guddee waxtu waa dem jox ma keneen wax ma dem ci xilaasu dahab bi. ndeysaan góor ga ca bi jaaw bu rafet ba. Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh baayu Serigne Maodo si sama Serigne yal na fi yàgg te ànd ak wér baayu Serigne Babacar si Abdoul Aziz Ndiol Fouta yal na yàlla yàggal ko fi te yokk wéram El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ne. maam Abdou ne yow mi may yedd maam Abdou ne fa maa li hindi nasibun bëgguma hind man Abdoul Aziz Dabakh. maam Abdou nee na bàyyi ma du may laa laa bëgg man Abdou Aziz ba waral nga may yedd maam Abdou nee ki ma bëgg di ci teg keneen day araam ci man de dox bi maam Sofeet Suña ji dee na noppal ma sama biir nëbbu ma ko man Abdou Aziz am na benn kaas boo xam ni ko ko naan dangay mandi kaas booba la ñu ma naan dal kaas booba ñu nga ko tànk ca balka Cheikhuna Tidiane waay waay seetal keneen te ga bay ba man Abdul Aziz Dabakh xatamahu jamiul anbiyaa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yaa Aduli yaa Aduli fatrif inaanaka anni seetal keneen te bay ba man Abdul Aziz Dabakh watlub al ghayra innani fi fanaa'i yeddal keneen ndax man jeex naa dàkk ci ki ma bëgg muy Rasulillah bakaar yi bari na solution am na bu bàkkaar baree ba jaaxal alaaji Abdul Aziz Dabakh ne góorgóorlu ba bëgg rasulillah ku sopp Dabakh Malick defal ni hubbu taaha lil muslimina najaatun taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Serif sa soppe ba Alaaji Abdoul Aziz Dabakh sa sëriñ ba nii lu bakkaar yi bari bari solution bi lenn la ñu ne ko solution bi lan la mu ne bëgg sayyiduna Muhammad amaanu min hawli yawmi liqaa'i ci yéen laa jëm ne assurance tout risque la bëgg sayyiduna Muhammadu hubba nabi bëgg sayyiduna Muhammad xaalana lahmi waay waay jaxasoo naag sama jaxasoo naag sama sama deret li ci ndaw mooy bëgg baayu Fatima sayyidul mursalina mooy sagu ji yàlla yónni mooy sagu ñuy rukkoo mooy sagu ñuy sujjoot jinni mi dee fi moom rasulillahi moom la yàlla garam mooy baayu Fatimatu Zahra bëgg sayyiduna Muhammad mooy sama farata mooy sama naafila moom laay naan mooy sama mébét moom laay dund ak Abdul Aziz bëgg rasulillahi mooy sama kaaba mooy sama dabdab mooy sama xatim mooy sama maqaam Ibrahima mooy sama marwa inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja al bayta aw ثمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما a تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سيد الرسل maa ngi ñëw dañu ne ci anniversaire ñuy sant yàlla muy fukkeelu at yu ñu ànd ak waa 2S kër gu tedd gi dëgg la xam nga leen rek laa bëgg di way ñi ci saal bi dañuy aw gis nga bu ngeen ko dóoree maa koy toj waaw waaw kon nuñ koy def maa koy toj kon nuñ koy def. xam nga fu ma bëgg ngeen déparé fa fa ma Malaaji Malick déparé doomi maam Fawad were jek maam Ousmane baayu Serigne Babacar yàlla ba borom manto ba borom lion d'honneur ya borom hëyka ba El Hadj Abdou El Hadj sa Serigne Babacar si baayam ba alhamdulillah gaa yi def leen xëy التقاء عامل لواء الطريقة التيجانية في الديار السنغالية مولانا الحاج مالك باي سيد بابكر مولانا الحاج مالك باي الحاج منصور مولانا الحاج مالك باي الحاج حبيب مدنا بوجود البدر ذي القدم ndeysaan Maam Alaaji Malick ne alhamdu sërif santal yàlla alhamdulilah wax leen alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin cant na yàlla Maam Alaaji Malick ne cant ora arab yi dañu naan ñeenti sant am hamda qadimin li hadimin wa amda qadimin li hadisin wa amda hadisin li hadisin wa amda hadisin li qadimin dañu yépp yàllaa ko moom imam Pape Samba mu ma defal teraanga may ma bub mu rafet ma sol ni ko jëf yàlla na la yàlla fay maa ngi koy sant mais yàllaa ko may xéewal gu ma mën a may kon cant gi day delluwaat ca yàlla imam Pape Samba mu ndogu ndogoom lu neex toog raay biiram ne alhamdulilahi rabbil alamin ndogu li neex na bari na yàllaa ko moom yàlla mu jekki ba mu yàgg di sant ab jaamam kom na mu def ci yonent yàlla yaaquba ah, ca yonent yàlla ayuba ni ni'mal abdu innahu awaab cant ga yàllaa ka moom ndax xool ba ayuba muñe ba ba yàllaa ko may xool ba ba mu mën a muñ mais yàlla mu toog ba mu yàgg nag naan laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaara wa huwa latiful xabiir ey ey ey jekki ba mu yàgg naan laysa ka mislihi shay'un neexul ba neexul mais kenn du man man yàlla lépp moo ko moom Maam Alaaji Maalik ni mboolem xaaju cant yépp nag lillaahi ñeel na yàlla dil ijaadi kii boromuk amal suñu wal xidami tey aji jëkk ji yàlla fi jëkk lu mu doon mu mittinaa muy aji tëbb suñu bi wujudil badri ci amal gi mu amal weer wi dil xadami kii boromuk jiitu xidam bu jëkk bi jëkk la muy yàlla bu ñaareel bi jiitu la yàllaa jëkk ba pare jiital baayu Fatima loo teg waay waay leen waay Nabi Allah moom la Salaatou Ibrahima moom la Jawharatul Kamal moom la Salaatou Nouraniya moom la wàcceel micro bi yéen laay déglu ma xool Summa salaatu wa tasliim pour pourtant dama ne ci nuñ ñu koy waxee convalescence mais dama defee ni damaa namoon gàmmu rek sama feebar bii namm gàmmu rek la laa yaakaar billahi damaa feebar. conférence amatul gàmmu amatul koor gi di nga conférence. déedéet koor gi incha allah dama wax ni duma conférence ak Chérif Maami ngir lan moytu rek mbas mi léegi nga dem nit loroo fa baa nga loroo fa. te ci lislaam daganul ngay loru daganul ngay lore te comme gàmm yi dañuy daanu di yuuxu di kottante ku daanu kott la mënoo ca dara te man naa daanu joxaale la ko baa nga jox ko moo tax ñu ne nañu bàyyi ba mu gën a dal rek ñu doog a tàmbali maamao doone maa ngi ñaan summa salaatu topp xéewal wa taslimun gu ànd ak jàmm yaboo ko gog dana kawe ala miskin ci gëttu misk parfum la warandin ak parfum boobu ñuy wax rand mani miska grande ni ñu gën a kawee ci mbooleem parfum yi maa ngi ñaan man maam alaaji malik salaatoog salaam bu gën a kawe ci mbooleem salaatoog salaam yi yal na ko yàlla dotti ala dil fadli ci borom ngëneel li wal xanami ki nga xam ne mooy tànneef bi muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji malik loo teg mu ni wa alihi wa alihi muhtadi muhtadi wa wa dal khirati al kurama al muntami <laughs> waxtu wi laay jëkkanteel baal leen ma rek maam Maodo nii maa ngi ñaan salaatoog salaam boobu bu ko yàlla defalee rasulillahi yàlla na ko defal njabootam ay waay yàlla nañ ci bokk ñun ñii amiin ya rabbal alamin nabi moytu leen di ma ñaanal ñu leen koy delloo ñu ne ko loolu nu muy nekke mu ne mooy ngeen ñaanal ma bàyyi sama njaboot yàlla nañ ci yàlla boole almuhtadiina ña di way jub tey jubale nag laa wax alxiirati ña di tànneef alkorama ña way tedd almutami ña di way roy ñenn ñi ni ña di way gëstu siiratil muxtaari jikkoy ku ñu wal xadami ak jeexitalam moom rasulillahi maar adar radu maar adar radu wal waawa yonent bi ana waaw madana muxtaar أرعد الراض والورقاء تنحب من هديلها وجرى دمع من القلم maa ngi bëgg a accident. waaw waaw maa arada raadu moo laaji Malick sa salaatu ak salaam bi kañ lay jeex mu ni feeg rëngi-rëngi di am léegi bi ma nee nii tëb dal nga dégg bruit bi fekk till di am rek na yàlla di julli coriti <laughs> ñu ñoo mën a ñaan maa arada fekk di dënu arraadu dënu fekk ngay dégg asamaan si di rëngi rëngi nee na salaatoog salaam na am fekk poor ba bëri goyee di wàcc naan rëll naan rëll fekk nit di dal poor bur wi di am alaaji Malick nee salaatoog salaam yàlla bu mu den ci yorente bi wala war xaawu te pettax mu di aji bari ji dunqu fekk tanxi bu mu ngi jooy mi na diili a cib cuujam fekk pettax di di jooy doomam wala picc di jooy wala ganaar di di jooy lu mu doon lu ne lii am dunq daal fekk ñu ngi jooy salaatoog salaam yàlla bu mu den ci wajara wajara wajara wajara wajara da nga yàqamti wajara tey daw fekk jaraa mu ngi daw damuun cooske xam nga cooske mooy la boo jëlaan xalima yatt ko bopp bi fi ñuy binde xam nga da koy toj da koy xar bopp boobu mooy cooske bu doon big fa ñuy binde ca kaw loolu mooy coos gi bu dee imprimante ah bu dee clavier euh, euh, touche yi loolu mooy cooske nee na fekk ñu naan tag muy génne lettre salaatu wa salaam yàlla bu mu denc yonent bi mais li dootul jeex li dootul jeex mën na loo jeex Maam Maalik waaw damay laaj ki ngay wax kan la mu ne way na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

خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون may ñaanal imam Pape Samba sama malaaji Malick ne wa innahu naka luy mbir tey mbir mu Moustapha maa ngi lay nuyu ba Souleymane yàlla nañ leen yàlla fayal ak délégation bi leen àndal ñii ànd naa ñoom fu ne ànd nañ gàmm goo xam ne dëkk mu sori la waykat yee gis leen defe ne ay waykat lañu di leen siis te ay saraxekat lañ ndekete <laughs> wa innahu ba gàmm sore ba sore ñu may sarax may sarax waykat ya ñu naan ñi nekk te duñu ay waykat ma leen ay saraxekat lañu yal na leen yàlla fay wa innahu naka luy mbir tey mbir <laughs> is araada kera ba nammee eh eh eh kan moo namm allahu yàlla xamoo ne yàlla turam original allahu la yeneen yépp dañ ko koo tuddee ndax da koy def boo nee sattaaru dafay suturaalaate boo nee xaafiri mooy day jéggalewaate boo nee ra'uufu mooy day ñeewante waate boo nee raxiimu mooy day yërëmaate waaye boo nee allahu moom rek la alaaji malik ne kera ba yàlla moom yàlla subhaanahu wa taala bu dee koy toog ba mu toogee ba mu bëgg moom yàlla lan la bëgg nas atanaa amal ñu ni daf ñuy amal di xool waa man ñii ma bëgg a amal nag d'accord abaana boobee la faccale abaana boobee la génnee min nuurihi ci leeram nuuran nabil alami leeru yonent bi dani cas ci leeram moom yàlla génn ci leeru sayyidina muhammad jël leeru sayyidina muhammad daan ni ku may bindati nag ci leeru kii laa lay bind moo tax jaabir ibnu abdullahi ni gaa yi nag am nañu kay weddi naan hadis bi wérul waaye wér na de ma jaabir ne bi abi wa ummi axbirni an awali cheyin xalaqahu llahu taala qabla al ashyaa'i qaala ya jaabiru inna allaha taala qad xalaqa nuura nabiyika min nuurihi fa jacala dalika annuuru yaduuru bilqudrati haysu shaa allahu taala wa lam yakun fi dalika alwaqti lawxun wala qalamun wala jannatun wala naarun wala malakun wala shamsun ملائكة ولا أرض ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق ختم ذلك النور أربعة أقسام yàlla daf ñu bëgg a bind jël ci leeram bind ci leeru sayidna muhammad booba dara amul mu bind ci asamaani juróom-ñaar bind ci suufi juróom-ñaar am na ay malaaka yu yenu aras juróom-ñett lañu mu bind ko ca bind malaaka yi bind aljana bind safara door ñoo bind lan moo waral mu bind ñu pour rek ñu wettali sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo laa ji Maalik loo teg mu ni innal awalima li wa safila

yàlla nañ ko yàlla fayal billaahi bu fekkoonte ni góorgóorlu woon nañu ñun ñii di waxtaan ba yem rek ci li mag ñi bind problème du am parce que mag ñi ñoom ñëpp seen problème du ñoom xam nga ñoom luy seen problème mooy waa ji lañ bëgg ñu xam ko ndax xam nañ ni ku ko xam di nga ko sopp te ku ko sopp topp ko ñun nag ñoo fi ne di wax suñu wax yu kenn xamul rek moo tax sëriñ maam yi wax na ko nee na fii ku fi wax sa waxi dof jëlal sa responsabilité nit ñi dañ lay xool duñ la faale ngay wax sa waxi dof après ñu jóg dem duñ la wax dara nag mais dañ lay jàppee dof bis boobu rek dem seen yoon. jeex na tàkk ñi ñoom ñëpp benn lañ doon joué lenn mooy kan mooy yonent bi innal awaalima naka àdduna yi du mooy univers en ah, ba xaj Boubacar Diop dafa am dafa am aalamul insi am aalamul jinni am aalamul malaayika am aalamul xayawaanaat am aalamu nabaat mboolem adduna yi nga xam ni bii mooy adduna yi nit ñi noonu la amee adduna yi jinne yi noonu la amee adduna yi malaaka yi noonu la amee adduna yi njaay àll noonu la amee adduna yi njanaaw yi noonu la amee adduna yi ji gàncax gi mboolem adduna yooyu yëpp aaliha ya ca kaw wa saafilaha ak yi féete suuf ñoom ñëpp ashiatun ay ceeñeer lañu mooy ay étincelle la ñuy doon rek talaat yoo xam ne ñu fenke min afdalin am nasami di ci ngën ji mbindéef muy sayiduna muhammad alaaji malik ne wa alama xamal na ku xam le allahu yàlla ku mu xamal hadina sayiduna muhammad lu mu ko xamal nu mu wata wooni ko yow ab yonent nga moo kañ la ko xamal wakaana booba nekk na aadamu maam aadama bay na naf si ci diggante sor wan na sami ak bind jëmm ji aadama bi ñu defaree ban bi xooyal ko defaraguñ yaram wi ban lañ ko bindee leeru yonent bi la ñu def ca ban ba xooyal ko avant ñu koy defar la yàlla ni yonent bi jógal yonent bi toog ruuwu yonent bi di wax ak yàlla yàlla naan ko yow ab yonent ngay doon booba aadamaa nga ca diggante bind jëmm ja ak sor ruuga moo laaji maalik loo teg mu ni uyunul arwahi ala maadil sutumi ñaari way nga ma deseel ndax waxtu wi jot na borom leen yee mbay ci yow laa jëm maa ngi ñëw maam Maodo way selli ruu yi muy Adama Ibrahima Idrissa Noohin Muusa Zakariya Yahya Insa Ilyas damay bañ waxtu wi dem ndax 123 999 lañ bu ma ko ci boolewul bu ma ko fi bëggee lim du sotti waaye kon daga daan ko yoonul arwaa yi ñoom 123 999 yooyu yëpp ñoom seen jëmm yu sell yooyu im baja sat balle nañu min nuurinu daa ci leeru yonent bi tey boo doon jël ceebu jën bu ñu toggee ak dawlinu jaara nga dànk ko boo ko danqee noonu muy siite noonu la yàlla danqe suuf su mu am ndox muy siit toq toq yooyu mu doon toq ci la yàlla bind ay yonent danq ba nag mooy sayyiduna Muhammad <laughs> déggu leen ma de ah, ma waxaat ko wala wala xaj ma waxaat ma waxaat ko <laughs> exemple bi dafa yomb de ceebu jën bu ñu toggee dëwlinu jaara nga tibb ci bi nga ko tibbee dànk bi nga danqee muy siit toq toq bu mu toq rek ab yonente la danq ba nag danq ba mooy sayyiduna muhammad mooy uyunul arwaayi min nuuril hudam ba jasat ñooñu nag la ñu danqaat ñooñu bi ñu leen danqaatee ñoo génne way gëm waaye ku ci toqe ci yonent bi rek ab yonent nga moo tax alaaji Malick ni way seen li ruu yëpp imbajasat balle nañu min nuuri ci looram fay naho naka moom baayu Fatima aljinsul ala mooy xeet wa gën a kawe maadina sutumi mooy mbellu cosaan ya rasulillahi jóg leen jóg leen taxaw jóg leen di jóg la jóg leen la fay rasul anbiya في عالم الملك kañ waaw kañ yal na leen yàlla fay toog leen yal na yàlla faj seeni aajo <laughs> li zuhurihi muqaddimatun تعلم ولا تنمي في عالم الملك والأرواح تابعة في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والأجسام تابعة للجسم هذا غاية الكرم في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم Yeah. ni danga ni boo bëggee ñu dégg firi mi koy def question Maam Alaaji Malick danga ni mbooleem lu yàlla bind yonent bi la ci jëkk a du yaa wax nga ni yonent yëpp ay toq-toq la ñuy jóge ci Sayyidina Muhammad du yaa wax mais Maam Maodo est-ce mu ni déedéet mais man dama seetlu ni yonent yee ko fi jiitu ñoom Aadama kon moom nan la leen di jiitoo te ñu jëkk leen gis mu ne wa xalqul axlaaqi xabla zuhurihi muqaddimatun li zuhurihi wa baasul anbiyaai qabla biasatihi muqaddimatun li zuhurihi li baasihi Maam Alaaji Maalik nii boo xoolee li waral yàlla benn mbindeef yi te booba moom feeñagul muxaddimatun ab alerte la ab yér la rek xam nga yër waa ji dafa feebar feebaru xel faju ba tane ñu ne léegi alhamdulilah te alxuraanam dafa neex ñu def ko imaam ndekete moom rab yi jàkka ji lay bañ allahu akbar bismillahi irrahman nga ma def nii sax irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin tari tari tari ba ñëpp ni amin xel yëpp a ngi naan ah ñun day suñu waa ji léegi moom tubarkàlla mu tari saar wu neex ni allahu akbar gaa yi sëgg mu taxaw ci sëgg bi rek te wasiggi ba yàgg mu ni nii tànki naan nii yéen a ngi gis ndax gars ndax yéen a ngi may gis. waaye waa jàkka ja ne ko ñu ngi lay gis. mu ne kon baax na sami allahu liman hamida léegi nag samedi bii di ñëw insha allahu bu ñu fi yàlla bàyyee ci laay wax julli googu lan moo ci war julli gi yàqu na am yàquwul ndax ki leen jiite ñoom dañoo jàppoon ni wér na ndekete ci li mu wane ma ni wérul de ndekete ci li mu wane mooy rab yooyu jëloon conseil waaye wéragul mama laaji Maalik ne muqaddimatul ab yër la li tuhuuri ci ngir feeñam ñi yàlla yónni ñëpp ak ñi mu bind ñëpp dañ doon ñëw rek pour ni waa jaa ngi gaa yi joxe naa ci misaal lu bare bari dinaa ko joxe waat rek comme dañuy ñaan misaal bi ma ci mujjee joxe nee naa leen bu ñu nee président day ñëw cees ñu ne kuy ñëw pré Thiès ñu ne président de la république xam nga ban heure la fay ñëw 15 ci bëccëg 15 heures la fay ñëw 15 avant muy jot 7 heures ci suba boo jógee dakaar ba ba ngay dem Thiès yaa ngi bu ay GMI yaa ngi romb gendarme yaa ngi romb ay maire yaa ngi romb ay lieutenant yaa ngi romb ay gouverneur yaa ngi romb ay autorité boo demee ba 15 heures moins 20 boo taxawee Pout benn oto romb la nekk ci digg bi ay motard dar ko benn ambulance ne ca kanam ambulance nekk ci gannaaw au web ñetti ji seeni veste taxaw muy garde ñi nga xamante ne ñooy garde rapproché yi su boobaa ci ngay xamee ni ndekete ki ñu doon xaar ñëwagul mooy kii ci oto bi maam alaaji Maalik ne kooko yonent yàlla Muhammad ñi yàlla bind ñëpp avant moom moom la ñu doon signalé ni mu ngi ñëw maam alaaji Maalik ne ñi yàlla yónni ñëpp avant moom moom la ñu doon signalé ni mu ngi ñëw alaaji Maalik ne fii aalamil mulki boo demee ca adduna ja nga xamante ni fa la nguurug yàlla ga ne muy aalamul laahoot aalamul naasoot aalamul aahoot alaaji Maalik ne wal arwaahu ruux yëpp taabiatun ñu ngay maajal ñu ngay topp li ruuxi ñi ruu yonent yàlla Muhammad kooku kenn du moom wal jismi waaw wax ko yatim at wax ko wax ko. yettiim xatukumu Serigne Babacar Sy neen. moom laay ñaane wax ko wax ko wax ko. yettiim xatukumu yettiim xatukumu. ana ñi sopp Serigne Babacar Sy borom bone kaare bee joobe rasulillahi. yettiim xatukumu yettiim xatukumu. Serigne Babacar Sy doomi Alaaji Maalik ay joobe rasulillahi. yettiim Serigne Mansour si baayu Serigne Cheikh Tidiane si almaktum mooy joobe rasulillahi yahti mahatukum mbay baayu Serigne Abdoul Aziz Jamil mooy joobe rasulillahi Serigne Babacar Sy baayu Serigne Pape Malick Sy mooy joobe rasulillahi borom leer yee borom leer yee mama Khalifa mooy kan radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi amin sangum borom leer imam Khalifa Cheikh al Khalifa borom bone kaare ba borom sàkkale yàlla ba nee na yatiima attukumu yatiima attukumu yatiima Cheikh Al Khalifa ne kii wàcc si ci yéen ñëw na ñëw na kii wàcc si yéen kooku kan la. ey Serigne Babacar si nee na yonent bi ñëw na ànd naa ki bagaas. Serigne Babacar si ne ak leer la indaale. mbay dégguma la waxaat ko mbay. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يأتي الأمين الذي يطير yow mi seetaan deses bul toxu de Abdoulaye Diop Bichri ngi ñëw ak ceet do Murit a ngi ñëw ak Bekkaay bekkaay prépareel alaaji Malick gi jël xalima gi jox ko Serigne Touba Shamsul ay ay ay Shamsul yati al amin alladi yati al amin alladi lawlahu ma baraza moom la yàlla wóolu moom rasulillahi Shamsul yati al amin alladi yati al amin alladi lawlahu ma baraza mooy ki nga xamee ne bu dul wotteeg moom ma baraza du génn Shamsul ida shamsu kuwirat wa ida nujumu nkadarat wa ida al jibalu si سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حسرت بلول ونك رسول الله كان دو أم جنت دي ولا قمر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بلول ونك بايو فاطمة كان دو أم وير اي اي سوف جرود نار نكو عمت لير رسول الله هو الذي لم لم ما نزل مم داي فرول وون اجي واي برول وون اك موم يالا دو واتي ما نزل ay alxuraan yi du ñu wàcc hadiisu yonent bi du ñu wàcc bu dul woon ak moom du ñu bind du ñu dicté eh eh eh nga ni sirru sarirati sirru sarirati yal na ci yàlla jaar ci secret boobu faj aajooy mboolem ñu ñëw ci plateau bi sirru sarirati maa ngi ñaan ci borom secret boobu yal na ci yàlla jaar xareel ñu aljana mboolem julit yi génn àdduna ci Sénégal sirru sarirati sirru sarirati maa ngi ñaan mbas mi ci adduna bi ci barke sirru sarirati yal na ko fi yàlla jëlee ci barke Serigne Babacar Sy maa ngi ñaan sirru sarirati ci barkeem yalla na yàlla def jàmm ci réew mii di Sénégal maa ngi ñaan 2STV nii mu nekk ci kaw yal na fa yàgg alaaj Njaay yàgg ni ko doxal a amareem nekk ci wetam ak technicien yi ci barke rasulillahi maa ngi ñaan lépp lu nar a taar réew mi yal na ko yàlla delloo fa mu jóge woon maa ngi ñaan réew mi daal yal na am jàmm ci barke rasulillah yi maa ngi jaar suñu kilifa diine yi Serigne Mountakha Bassirou yal na fi yàgg te ànd ak wér maa ngi ñaan Serigne Babacar Sy Mansour Al Khalifa yal na fi yàgg te ànd ak wér suñu baay bi ci Yoff Alaaji Ablaye Thiaw Lô yal na fi yàgg te ànd ak wér tafsira sarirati mooy sekkare sekkare yi nuurul xalqi xaayidu joluñu benn distance nag nuurul xalqee ko waral nuurul xalqi xaayidu mooy leeru mbindeef yi mooy wamman mbindeef yi xayru xiyaari qurayshin tànneef yi moom moomu mooy seen tànneef bu ñu la laajee géej gu bari jëriñ gi rasulillahi yàlla kenn la tànn mooy sayyiduna muhammadu Serigne Babacar Sy ne jëmmi yàlla ja sekkere ba rasulillahi ey mooy sekkere mbindee fii wa jawdi juudi naxma moo gën a tabe way tabe yi mooy xéewale li ñu am yëpp ñu ngi ko jëlee ci ay wicc wiccalam fa kayfa qiimatuhu ay waay bu tawee fu ñu jëm lil bari atraaw bu taw ba sottee xanaa dañuy lab ci leeram kaana bu coono amee wa naqdun bu bekkoor amee zamani bata bu feeñee ci jamono jawdun yonent bi ku tabe la wa tawdun ku mën a muñ la ba mel ni xeer yàlla nañu fekke déwén mbokk yi na ñëpp tàllal loxo yéen ñii seetaan seen télévision bii di 2S doon seetaan spécial gàmmu ànd yu mag yi bu leen toxu alaaji Bekaay Mbay mu ngay dalal Ablaye Diop Bisiri ak Ceddo Murit léegi ñu jox leen seen bi ñun bu ñuy génn rek ñoom ñooy dugg yàlla nañu yàlla defal jàmm allahumma aslih lana dinana alladi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha maashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha maaduna waj'al alhayata ziyadatan لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين بمحمد وببنته وببعلها يديه مسبتين أعلام الهدى وبسحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى آمين يا رب العالمين يلا نكو يلا يلا بيت ay dara Voici la saison du partage, de la solidarité et de la sincérité. Voici un ramadan qui, plus que jamais, nous réunit. Soyons présents, qu'il s'agisse de partager un dogou, de partager des solutions productives ou tout simplement d'être un soutien pour ceux qui ont besoin de sourire. Sourire de ceux qui, malgré la distance, seront toujours au plus proche dans cette grande famille sénégalaise, parce qu'après tout, c'est l'esprit du ramadan. L'essentiel cette année, c'est d'être solidaire. Alors, ne ñu ànd si koor, ànd si lépp. Orange. koor dell si moo nee ak kalpe bi gënte wóor fii ba korite gi ku ci retiré lu matul 100 000 francs CFA ñu wàññil la ba 40 pour cent ci frais yi nga daan fay bu ko ëppee nag 1 cent rek ngay fay ci frais li jëm ci fay facture ak transfert ak code moom kenn waxatu ko daañu la wàññil ba 50 pour cent ci frais yi eh, yamul foofu nag de Orange Money dina baaxee sunu client yu am kolëre yi lu ëpp junni pañe ramadan yu am jom Orange Money mooy kalpe bi gënte wóor yeneen i leeral ci orange point sn slash orange tiré money kooru jàmm Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. Une cuisine saine, appétissante et généreuse est toujours synonyme de stress et d'aléas. Faire saliver avec de bons plats riches en vitamines n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, l'huile Diara fait toute la différence. Sa gamme variée de formats pratiques Sa qualité aux standards les plus exigeants et sa générosité révolutionnent la cuisine et donnent un goût unique à Vondogu. Idéal pour toutes les préparations, Jara fera autour de vous beaucoup de jaloux, mais aussi beaucoup d'heureux qu'elle accompagne pendant le ramadan. Que son goût et sa qualité vous accompagnent durant ce mois béni. sama ma mës bi day tëj. j'arrive mon trésor. 15 jours nga ma waxoon ci les contrats bi Sénégal. ça fait maintenant 2 mois. le de papier à carte de haute qualité fabriqués au waa maman waa maman fii di yoonu manège bi de waa man kañ laa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 ramadan en famille, c'est toujours mieux avec l'eau minérale naturelle Kirène et la pétillante de Kirène. Profitez des minéraux nécessaires pour rester hydraté et en forme. L'eau minérale Kirène vous souhaite un excellent mois de ramadan. Kirène, soif de vivre mieux. weeru koor bu sell bii Poulet Teral ñëwati na ak ginaar gi ñëpp taamu waaye itam ak lu bees tàkk ay pak ramadan yu yomb te riche taamu leen seen Poulet Teral ngir bégal seeni njaboot ak ay togg yu neex te barkeel lii si blanc de ak brochette bu si nekk ak façon boo ko mën a toggee teral daal moo yombal liggéeyu jeeg si biir waañ ndogu li du neex te teral teewul ak teral da togg si bànneex yekk si bànneex teral moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm jàmm ko bokk. ci weeru koor mu sell mii seen méewu dano moo leen di jox ca waxte bi ngeen di yittewoo saay su nekk dano méewu nag piir la bu sell far te bëri ferñeent di leen di gunge ci seen ay ndogu ak seeni sukkaru koor ramadan mubarak ak méewu dano NMA Sanders daal mooy seen moomeel di leen taxawu te di leen yokk Ramadan Moubarak avec NMA Sanders